baax maa ngi lay ziar. yaa Babacar borom Equivox. ci loolu maa leen di ziar ak waa Bour Gueweul TV maa leen ziar yéen ñëpp. naka yëngu yi. sant nañu baax. mais di courage lañ lay wax. waa dëgg-dëgg waa di sant yàlla rek. Mm-hmm. xam moom ut ku ne da ngay ut. yàlla mooy maye. am la ak ñàkk ak masinil. bi ñuy ñëw ndam moo ñu taxoon a jóg. di ñu yàlla xañee ñuy sant yàlla rek. dem defaraat waajalaat ñaan yàlla prochain komba yàlla may ñu ndam. matul weer nga jëlaat combat jël wax Liss Ndiago waaw xam nga tey nit boo amee kilifa nga dénk leen sa bopp li nga mën mooy topp ci seeni waaw pare naa pare ñoom gisaat nañ beneen combat jël nañ ko man li ma mën mooy dem waajali ndax Max Mbargane nee na dimanche boo toog bëre woo ko perte nga ko te làmb mooy suñu métier man aw ma diplôme aw ma métier bëre laa am te teral samay waajur kese moom si tax a dugg damay bëre saa bu ma joxee combat jox ma lu ko jar wax ak samay staff jubóog ñoom muy sama morom damay dem jëflante ak moom quoi. mais jëloo risque est ce que xale bii nga jëlati xale boo xam ne mu ngi ci yoon xale bu tuuti Liss Ndiago est ce que du risque par rapport ak li nga jógee. Babacar nee naa la xale du jël risque xale du jël risque te man xale laa yàlla moo def ma teel a bëre teel a am tur 2016 laa bëree làmb fin bi 2016 nekk xale bu ndaw yàlla bu la mayee tur nag amaan na mën nañ xam nga jàppee ni ma la baay maak maag booy ay non ay morom lañ te man damaa war a bëre samay morom. donc dama jàpp na moo doon jëflante ak ñoom li may ñaan rek mooy yàlla may ma si ndam incha allahu rabbi nee naa ko léegi dafa mbër noon na ku man sa morom yooyu combat bi passé mu ne loolu daa xew yi nee na rocc xaw ma put xaw ma nu mu ko waxee lu doy waar la waxa luqi put waa luqi put mbay non ñooñu dañuy wax rek ñooñu samay fans lañ ñooñu ñu taxawee bay am lu ñuy wax ci làmb di yee eh, yooyu yëpp man samay fans lañ Liss Ndiago sa fans la li ma daan signaturé ay l'an 2004 ñoom moom la ñuy signaturé tey booy samay fans lañ yàlla na ma yàlla may ndam nee na bu doon dix la maanaam dix dix nee na ndam yëpp jàmm gën lay dugg mais parcelle buy ñibbi zéro lay yóbbu. waaw loolu wax la nii rek mais bu ñu ci yeggee dina leer damay sant yàlla parce que saa yi wax waratuma ko waa parcelle dama leen ameel boor bu nga xam te ne dama leen ko war a fay samay grand jël nañ combat li ma ci war mooy dëxëñu ray sama bopp ñëw indil leen ndam. combat bi pass lan moo la manqué woon. waa dama jàpp ne ñàkk moo ñëwoon rek mais li may wax waa parcelle man seen doom laa maa leen tàllal loxo. ñi si war a jàpp nañ jóg jàpp ji. est-ce que physiquement Tapha Mbeur amu kon manqué kon fraîcheur physique contre Ada Fass. non mais ñëpp gis nañ ni Tapha Mbeur combat bi lépp luy entraînement damay sant coach gi bu baax di sant Pape mbay Rock Énergie ñoom laat ñoom conke sil lépp luy coono teg nañu ma ko lépp luy entraînement bu dee doole lépp pare naa mais nag nañ ci jàpp waa parcelle seen doom laa bu ñu wax après nañ di wax avant bu làmpal awatee nañ ñëw jàpp ci parce que sunu ndam ndamu parcelle la bu ñàkkee dañ naan mbëru parcelle bi maa ngi leen tàllal loxo bu baax ma roi des arènes dama ko war a dugal parcelle. yow mii de. te incha allahu rabbi buñ ma kattanalee dooleel ma ma indi ko parcelle. incha allahu rabbi xale bii di Liss Ndiago ngay jaaraat bi yoon. ci képp kuy mbër taxaw sama kanam rek dama war a jaar sa kaw jàll man làmb li ma si dugal du pour bëre nii de. dama dugg pour doon champion roi des te yàlla na ma ko yàlla defal. kontaan ci di bég ci yéen. jaajëf maa ngi lay béggee. waaw ñoo ngi lay béggee bu baax di la fay. am nga jàmm. waaw lu si ëpp jàmm la. ana waa jàmm gën. waaw ñu ngi bu baax ñu dal jàmm. jàmm gën la ñu wax nga dëkk jàmm gën. waaw dal jàmm rek bu baax ñu ngi foofu uh-huh. waaw. sa combat taxaw yaak Tapha Mbeur. waaw kon combat combat la rek kon combat yi doon jaar. Uh-huh. waaw. mais nga ne combat la comme combat yi. est-ce kon dafa mbër gën a yomb ci yow. waaw kon yee doon fi jaar daanaka bii moo koy gën a yomb de. ci xeex wala ci bëre. ci lépp. da nga koo dàq bëre wala da koo dàq ko gën a nekk xale maa ko dàq xeex maa ko dàq bëre. maa ko gën a bon. yaa ko gën a. dama koy rendi rocci put bi. doo dee goroy naa la rocci sa put. noonu na fi ku mën sa morom yéey de. loolu dafa xew ay ku mën sa morom yéey yéey da nga koy yéey bàyyi ko. rocci sa put moo xew. ku mën sa morom rocci put. yaa wax lii man maa ko wax loolu. du man ak ñoom quoi après lañu comprendre jour combat yi bu gee jotee ngeen comprendre ñëpp. mais Liss bu ñu la nga jóg mbooloo mi lay topp Liss. waaw mbooloo yi moom la rek xanaa tamit yàlla moo ñu jagleel loolu waaw tamit du dara du suñu mën-mën tamit du suñu leneen yàlla moo ko def si ñun waaw. Liss na Ndiago. waaw dégg naa Ndiago. ma Ndiago. waaw maa ngi leenu may ma leenu ba yëtu nji di leen wax nañ ma li la mooy man kontaan naa yeey undu muti na bugg na njàqu te a ma njàqu di ko fuur te di ko lal yeey mu mel ni beneen parcelle ba tey mooy continuer ak Diamaguène Papa Sow Siteu Liss Ndiago Tapha Mbeur waaw lépp ay victoire rek pour Diamaguène Mama Lamine Garga de lépp ay victoire pour Diamaguène lu baax lu ne rek Diamaguène lay féetee après ah. waaw fii laa la ko waxee kon waa parcelle daal da yaakaar du am dara kon 10 10 après 10 lay doon mais heureusement 3 la su ma jumul. waaw 3-0 la. bilaay. ana Lora. Lora ana fi la newoon léegi léegi rek. ana Lora faw mu ñëw. sama gaay copain waaw naa dafa jaamu copain yéen a ànd ak liste jàmm ay parcelle ngeen di defanteel Tapha Mbeur daa jóge ci defet de. waaw bilaay ñun jaamu nga leen dëkk ragaluñu loolu war na sëñ waaw. ci defet la jógee de. waaw loolu noonu du dara mais sa teewul da koy jox cër rek entraîné jox ko li mu moom. wër na yàlla te da ngay daan bilaay wër na yàlla. mais mbër mu jógee ci defet nga jëlaat ko. mbër mu jógee si defet da jooy waaw da ma duggee si defet di jooy ay rongañ la doon jooy damaa bëgg mu jooy deret moo tax ma jël ko. yow mi soxor nga kat. waaw yow man man baaxuma de alka alka bu dof baa ngi nii surtout jaanu mala dof bi alka alka bu dof bi ñun wéeruñu. wéeruñu de saa yi faana faana la ko waa xamul lu bëri. kan mooy faana faana dafa am. mbër faana faana la li mu xam bëriwul ko waa. waaw xanaa moo tax kon mu dugg ci yow wala. borom xel moo war a moo war a xamal maanaam dof. waaw ñun ñoo ko war a xamal ko waa. <laughs> waa mais Laurent. lépp jàmm. lépp jàmm kay. dal bu dal baaxom. dal kay. waa xaay na naka tay. tey a nii rek. waaw ah, naes Babacar yaa ngi toog ci arène bi waaw ragaluma loolu di xool làmb ji waaw ndax fii wàcc naa fi wane fi sa bopp waaw def lu ndaw ànd ak sama waaw mi lis lis jël tafa mbër waaw parcelle ke parcelle ak ak ak jàmm ga làmb la ñoo gën a dëkk parcelle sax li am parcelle moom amu ko fa moom tafa waaw lis na daa soxor de ne bii làmb tudd na baat bu doy waar maanaam ku mën sa morom sax. rocci sa puut waaw ku mën sa morom rocci sa puut daa juum ne góor du yërëm góor góor du yërëm góor si bii dund mais soo dee ñu yërëm la waaw. Tapha daa juum. daa juum. mais est-ce que lis jëlu risque ci Tapha lan mooy risque Tapha su nekkoon risque ñun mooy loolu comme risque kan la war a bëreel xam na ne inji mën li waaw mooy man kontaan naa. waaw. kontaan li mu jël liis te liis xale la man ma yónnee ko liis sarro xale bu ndaw moom dama neex. bilaay. cey la cey lora. lamba ngi suñ kanam nañ di seetaan rek. mais ci ci defet la jógee daa mer de dafa ñun ñoo ko daan. daanuñu ko. déedéet aara faasa ko daan. waaw ñun suñ combat ak moom la ñuy liggante. moo ko mu bëreel ñoom ñaar la. Eh, na waaj fu mu xam na dem na entraînement yee eh, na entraîné lu mu entraîné wul doyul barki yàlla lii sa këpp doole bilaay walaay déet dafa am du bandi bandem xaayul bandi bu xaay nu muy mel xoolal liis njaago nga xool danga koy xool danga koy gis kay pare na wala pareegul nu na ma pare de dafa pare billaay wallaay taalaay dafa mbër amuloon client sax moo yeb mais seen digganteeg waa parcelle lan la Papa Sow Siteu Garga 2 Mama Lamine Liss Ndiago ak Tapha Mbeur ñëw dolleeku ci dolleeku man moom ñun ak ñun ñëpp benn lañ lamba ñu boole te ñun waa parcelle dañ ñuy béggee surtout man dañ may béggee yee Tapha Mbeur su ma doo bëreeg moom man waa gàllem man lañuy faral te Liss mooy man man maay moom waaw jàmm duñ benn sax wala parcelle fépp maa ko ëpp supporter gi nga maama Lamine ak ñëpp dileen leen ñaanal ndam ñoom Siteu waaw mais lés dafa mbër si digg ñàngatang bi oh c'est pas l'appel c'est pas l'appel la demee nañ bare rek mais Tafa Gueye de yóbbante na ma ci yow nee na du sa morom na ma may sens nee ñaari xale faas tànn leen ba pare dafa ko dara la wax de moo ko wax démb moom du ma wax ñan laay bëreel su bëggee daf may may ñu bëre su ko bëggul mu dem ma dem mais lamb léegi du par ma la mais kooku l'espagnol la mën naa bëre de waaw yow na doon italien dafa yow kii gënuñoo dégg dara dégg nga espagnol comme dul espagnol ñun dégg nañ ko non na làq ñu làq wala yow nga làq ma la na taraw ba xaa waaw moo tax ñu naan ko lan tamit ñun amul lu may waxak ak moom na ma may moom lënd la. lënd lënd daa yàgg waaw. yaxu daaw la. yàpp mag bu yàggee day bàyyi. yow xam nga ne yow Tapha Gueye 2 lënd la. man xooluma ko ndax maalaw say raas daf ma bëgg a may sens. nee na pare nga topp mag ñi rek. Balla Gaye sax dëkk nga. nañ ma may loxo ma jub man dama bëgg a bëre ak teral boo yu may àndal. te ci Modou Lo nga ko mën a amee. nañ ma loxo ma jug waay. billaay wallaay. mais Modou Lo mbër waada la de. man du ma mbëru aada. mbër waada laa lan mooy waada. mbër mu mat mbër. mot mbër bu. mbër. man kay. ah yaa ngi wane sa bopp kay. barki yàlla laa la waatal ni man fu ma jëm ragaluma fa. yee ndax yow xool nga lu may bëre gis naa lu rëy li nga def fii kara góor doxul sama kaw yee góor du dox sama kaw ku dox sama kaw ma mettre en respect baadu billaay wallaay taalaay ñoom xam nañ ne ite binti banta inte ka bunte ka bunte ñaama sidee ramala ansoy abdou waaw aminata foofu nooy tata rose wayaay adama ñoom ñëpp pa a ra ta sa waaw loolu yëpp jàng la dañoo jàng sax nga ne M E Z Q K L Y Z waaw jàng la alifun sax jàng la billaay wallaay ñun dañoo jàng lépp alifun ba un sa un ñun lépp lañ jàng billaay wallaay ñu naan la takta miiwu mu bàqi ran yee njaagook olof lépp benn la lépp benn c'est le Sénégal qui gagne. waaye c'est le dëkk bi la. dëkk bi maa xam nga ne kontaan naa ci yow. kontaan continuer mer.